Safona atte nañu ko sax démb ca tribunalum Dakar ndax mbir mee garaaw ki nga xam ne mooy chauffeur bi nee nañu dafa lànkoon kandaare bañ a bi nga xam ne ay gendarme ñoo si yoroon ay oto ay journal bi nee nañu nañu ko tëj lu toll ci benn weer boo xam ne daf koy tëdd yéene kaay gi di 24 heures bàyyi mbirum accident boomee wax ci Aly Kalaj Gueye nee ma élection législative yi Alioune Tine moom nag daan nay sàkko ci opposition bi ak ci pouvoir

a négocier ak opposition bi ngir nag daal di xool porte de sortie Macky Sall nga xam ne moom la yàqi mi loola rek war na tax kenn wër joxaat Benno Bokk Yaakaar majorité ci assemblée nationale yéene kaay gi di alerte xëy di xibaar naan ñu pari risqué ci ñi nga xam ne dañoo jóge ci opposition bi transhumé dem ci nguur gi maanaam bu ñu leen gàñee ci élection yi gàcce dina leen reye ak ñi nga xam ne jot nañu joxe ay consigne de vote Bamba Fall transhumé jamono ji ñoo ngi woote ngir nag ñu daal di sécuriser li nga xam ne maanaam mooy vote bi yéen kaay gi de libération ñu xëy fekk fa Cheikh Thioro Mbacké bokk ci Pastef dëkk ca Touba nee na ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoom xam nañu ne dañuy ñàkk li nga xam ne mooy élection yi ci Touba ak ci département bu Mbacké loolee moo tax waa Benno ñoom dañoo fas yéene saboter li nga xam ne mooy élection yi loolee nag na ko adduna bi yëpp xam waaye nag duñu ko daal di nangoo yéen kaay gi de l'Observateur xëy ci campagne bi yi nga xam ne saa suñu génnee mbooloo yu topp la bi nee na muy coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñaari coalition yi gis nañ ne mbooloo mu bari ñoo leen doon topp ñu a voté ji dimanche ci fi nga xam ne mooy point e bureau numéro 2 centre na tey jii ci àjjuma ji la Abdoulaye Wade di ñëw ko nee nañu suba la Abdoulaye ñëw suba ci samedi ji yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy nañu ndax abstention du am maanaam ñu bari ndax duñu bank seen loxo ci yi la ko waral mooy ay liste yoo xam ne amuñu titulaire ak ay liste yoo xam ne amuñu suppléant ak lu jëm ci wàllum nawet bi ndax loolee munta découragé loo gars yi yéen a kaay gi de Le Quotidien géej waay sigi coor ak Thiès foofe nag coalition Yewwi Askan Wi ñoo ko gañe woon ci local yi confirmation lay doon wala remontada lay doon ci benn bokk yaakaar Dakar moom jamono ji ñi nga xam ne ñooy socialiste yi ñoo koy xëccoo ndax ay socialiste la ñu investir ci Yewwi Askan Wi ak ci benn bokk yaakaar yéen a kaay gi di critique nee na Abdoulaye Diouf Sarr remontada la bëgg def ci diwaanu Yoff a Alioune lii ko di ñu fekk fa Barthélémy Dias nee na ko gawuma loola maanaam Dakar moom yeewu askan wi victoire bu rëy la fi am ci Vox Populi moom doomu Sampol Dias bi bu ñàkkee élection yi ci Dakar maanaam bàyyi politique moom Barthélémy Dias Ousmane Sonko nee na 2024 commencé na maanaam jamono ji nag bu ñu bëggee sauver Sénégal la koy daal di ngir nag votel coalition yeewu askan wi avenir Sénégal moo nekk en jeu ñun coalition yeewu askan Wade Khalifa Sall bañ a bokk ci élection loolu lépp danañu ko daal di kase yéene kaay gi nee na moom Sonko nee na tamit dinañu ubbi enquête ci xaalis bi ñu def ci coronavirus bi bi ñu def ci terre bi bi ñu def ci inondation yi ak ñi nga xam ne ñoo luubal alalu askan ñoo ñooñu ñëpp danañu ko leeral ba mu leer nañu ci commission yéene kaay gi di réew mi ko di jee liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen o ñoom nag nee nañu dinañu amal ñetti fan yoo xam ne dañu koy gerawa maanaam tey ci àjjuma ji suba ci samedi ak altine ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéene kaay gi di la turbina nee na Serigne Saliou Thiouna mi jiite cantaakon yi Macky Sall recevoir na ko waaye audience boobee andi na ak pëccaxoo andi na ak xaajale ci njabootug Serigne Cheikh Béthio Thioune Gaye yéen a kaay gi délibération nee na chambre criminelle sa Ziguinchor dañu fa àtte mbir moo xam ne yéem na gars yi ndax dafa am benn waay bu tudd Mamadou Diallo kookee nag dafa daal di rendi ab jarbaatam bu am ñaari at waaye bi ñu ko laajee nee na bi mu koy rendi moom rendi wutoon nit waaye ak lëg la doon rendi maanaam lapin tëj nañ ko nag li des ci ak dunda yéen a kaay gi di réew nee na inspection générale des bâtiments génn na rapport nee na lu toll si junni ak juróomi téeméeri bâtiment yoo xam ne